fait des beignets à la banane. Mm. C'est avec euh, Sophie. so oui Dieynaba. waaw. waaw ko ne. ana Libin xanaa moom ci bi la nekkoon. waaw <laughs> ah? waaw lii mën mën nañu ko naanee café en attendant. bisimilah. <laughs> bisimilah Dieynaba comme ni ñu koy waxee woon. loolu noonu nga yor noonu lan la tey dinaa jóg de. lan ci. Ah. ayca xaaral ma xaalal la yoon bi. voilà aujourd'hui j'ai envie de sentir ton parfum. Hmm. Aïcha Aïcha bisimilah. bisimilah Dieynaba gis nga rek euh, comme ni ñu ko expliqué woon sànq. may ma jël ci orange rek te dem <laughs> kon man xamoon naa ne am na lu ko fi andi comme ni ñu leen ko waxee woon rek euh, sànq tey nag euh, ay beignet de banane la ñu andi comme ni ngeen ko gisee nii commencé nañ li nga xam ne mooy euh, préparation bi déjà rek ñu ngi jotoon di xool xolli quelque bananes mën a ñëw defar ko pour ñu defar ko nag c'est très simple teg nañu huile de friture bi de côté dañuy ñëw rek daal di defar li nga xam ne mooy pat bi nga xam ne mooy doon base du beignet bi déjà nii dañu jël trois 300 grammes de farine moom la ñuy utiliser tey dañuy ñëw rek def ci li nga xam ne mooy sucre bi. voilà gis nga dañuy def équivalent wu 100 grammes de sucre ngay mesurer soo defee 100 grammes de sucre nag da ngay jël benn sachet levure chimique moom ngay jël daal di ciy sotti suñu paree nag toujours rek bu ñuy defar ay beignet ñu bañ di fàtte di ci def sel parce que sel bi mooy tax beignet bi di am couleur doore bi nga xamante ni nii xorom waa kay jeena ba xorom lu mu amul baaxul moo tax. <laughs> yaa wax loolu moo tax ñu bañ fàtte di ci euh, def li nga xam ne mooy xorom parce que moom tamit mooy euh, base beñe bi ci la bokk dèjà nii tuuti xorom rek ngay def daal di teg na le ñëw nag daal di mélanger xorom bi ak euh, sucre beeg levure chimique bi parce que boo ko mélangé wul nii levure bi mën na demee benn côté moo tax boo ko ci defee ba pare rek danga ko war a mélanger ci ci saa si nga xam ne da léppay àndandoo homogène bala nga ciy def li nga xam ne mooy meew bi mën a mélanger bu baax a baax a baax boo defee nii nag ba pare da ngay mën a creuser Euh, benn fontaine ci digg bi rek daal di ñëw nag euh, mën ci def li nga xam ne mooy euh, nen yi comme li ñuy wax nag à chaque fois toujours rek booy def nen bul ñëw rek directement nga def ko ci appareil bi parce que déjà bu tàngaay bi nen yi mën na bañ a frais wala nen yi mën na yàgg fi mu nekk boo ko ci defee mu yàq li nga xam ni mooy appareil bi de préférence nag da nga koy tëj toujours oui na ba question. Mhm. Euh, kilo kilo kilo farine ñaata nen moo ci war a dem. bu dee kilo farine ñetti nen nga war a jël. d'accord bu dee kilo farine ñetti nen nga war a jël déjà ni 300 euh, grammes laa utiliser ñaar rek laay def parce que pâte bi may defar damay soxla mu gonfler jug ci kaw moo tax. mais sinon mën nga def rek benn. mais gis nga nii tey deux laay utiliser mais œuf entière nag de préférence bu la euh, am na ñoo xam ne bu ñuy defar ay beignet bëgg mu moyen la de trop mën nga def jaune bi mélanger ko noonu jël blanc bi daal di koy en neige à part nga xam boo defaree appareil ba pare da nga ko nga am li nga soxla déjà su ma nag nen yi ba pare damay commencer euh, mélanger ko ci digg euh, pâte bi lii nag mooy permettre boo koy mélanger nii boo ñëwee rek mélanger ndoor lépp mën na am ay grumeaux mais digg bi nii ngay commencer daal di nag ñëw jël li nga xam ne mooy meew bi commencé moom tamit di ko ci rajouter délicatement gis nga nii nànk rek ngay def gis nga nag su ma defee nag ba commencé am li ma soxla mën naa dindi cuillère en bois bi daal di koy teg ne jël benn fouet comme ça daf may permettre ma gën a mën a mélanger li nga xamante ne ni mooy euh, suñu appareil bi voilà. gis nga nii rek pat bi warul euh, tooy ba mu ëpp warul dang tamit ba mu ëpp comme ça nga xam ne di nga ci mën a def say beñe tranquillement te doo am benn euh, problème te nag baay bu fi nekkoon xam naa ne jey na ba dina ma tere beñe ndax tere woon na ma beñe ndax dama xaw a nduroog beñe <laughs> bàyyi nam nañ la <laughs> beñe waaw na ba gis nga nii ak fouet bi danga koy mën a travailler bu baax ba du am benn grumeau gis nga ci sens bi rek voilà gis nga. waaw di ko yëngal nii waaw. <laughs> ak fuye bi voilà gis nga nii rek lu am benn grimo nga am pat bu liis boo xamante ne nii gis nga voilà nii nag lañ ci soxla déjà nii amul benn grumeau. pour wax leen ne mën nga xooyal bañ te doo ci dugal sa loxo. merci beaucoup. ok voilà gis nga gis nga nii rek jay na ba ñu am benn pat bu. Euh, flûte boo xamante ni amul benn grumeau rafet na boo ko séenee rek déjà nii rek sans pour autant nga def ci euh, li nga xam ne mooy banaan bi mën nga ko bàyyi mu reposer wu quelques minutes nga xam ne mooy comme beñee bu ñuy def noonu beñee nature bi nga jël sa benn soit kook wala benn luus rek di euh, def ci uile bi muy nga am ay beñee yu naturel yu simple yo banaan bi waa dama koy dagg ci kanam mais dama ko bëgg a parfumer tuuti pour relever goût bi damay def fa tuuti essence voilà tuuti essence vanille <laughs> daal def tuuti euh, fleur d'oranger lii nag c'est juste pour relever goût bi bu la neexee mën nga ko bàyyi noonu mu nature wala nga jël benn orange. nga jël benn orange daal di ko ci pressé dina relever li nga xam ne mooy goût bi wala soo amee tuuti coco râpé nga daal ko ci sànni nga euh, xam ne boo koy lekk di nga ci sentir euh, quelque ko ci biir voilà fi mu ne nii nag euh, pâte bi pare na li des nag mooy damay ñëw rek jublu ci banaan yi déjà xolli woon na dañuy ñëw rek daal di koy découper découper ko ay découpe yu yem voilà soo bëggee nag mën nga yokk li nga xam ni mooy épaisseur bi mu gën a mag mais man dama koy bàyyi nii comme ça ñu am ay beñe yu yem mu bañ a déborder. de. ah bon maa la ko wax. <laughs> gis nga jéy na ba bu ñu defee noonu nag ba pare dañuy ñëw rek jël beñe bi daal koy. trempé ko ci. <laughs> gis nga nag euh, nii la la ñuy def dañuy rek euh, ñëw daal di jël suñu benn cuillère gis nga bu ñu defee nii ba pare dañ ko ci enroulé ba nga xamante ne nii doo séenati banaan bi pat bi rek ngay séen ñu daal di ñëw rek daal ko ci def ndànk nii rek jey na ba amul benn problème dama koy andi léegi ci plateau bi. jeex na. ay beñe yu tàng jër. comme ñu def ci tuuti sucre glace ak quelques ak quelques pépines de chocolat rek su ko defee ngay mën ko ànd ak café au lait bi bu Libin andi nii. <laughs> dafa tardé waaye <laughs> gis nga nii rek jey na ba mën nañ ci sotti yëpp. voilà gis nga nii rek ñu continuer di def même chose voilà moom it ñu daal di ko ci kii levure bi nag ñu fàttali benn sachet rek la ñu def pour 300 grammes bi. parce que bu ci levure bi baree boo koy lekk da nga ko ci sentir. te loolu mën na la andil ay ballonnement de ventre toute la journée boo ko defee levure bi noonu da koy sentir ci sa gémmiñ wala ngay toog di ko géex te c'est pas intéressant benn sachet bi rek dina dooy mooy sachet bu 7 grammes bi moom dina baax pour 300 grammes de farine. parce que pâtisserie euh, Dieynaba dafa xaw a délicat soo xasee rek ba raté yi rek li ci des yëpp da koy raté moo tax da war a bàyyi xel. toujours rek ci mesures yi. moo tax sànq ma laaj na la kilo farine ñaata nen lañ ciy def. waaw parce que di nga gis ku ci def benn di nga gis ku ci def ñett. <laughs> waaw voilà gis nga nii rek na ba ñu bàyyi beñe yi daal di ñor nànk ci kanam nag ma retourné ko waa ma dressé ko gis nga déjà jël na pot orange bi mooy zeste d'orange bi daal di ci defar benn fleur daal di xolli quelques clémentines teg à côté ci kanam nag moom mu accompagné ko am nañ quelques pépites de chocolat multicolore yooyu yëpp ci as ci décoration bi la bokk parce que tamit euh, plat dafa am noo ko war a comme ça boo ko tegalee nit ki rek même bu xiiful woon automatiquement dafay am envie lekk na ba ba am na ci solo lool ci kanam nag fekk beñe yu ñor ma andi ko ci plateau bi ñu jàll ci dégustation loo def a gën loo deful euh, <laughs> so euh, donc à tout à l'heure beñe nag boo ko yekkee ba pare dañ koy may Alfi euh, Alfi Ba ak doomam Léo mi doon fêté démb son anniversaire donc Alfi ces beignets sont pour toi ma belle tu nous manques beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup donc nuyu ñu waa Espagne yëpp bu baax a baax merci à toi.